jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen jaare Eh, ñu ngi fii ci kër Alioune Badara Ly moom mi nekk maire Koungheul nekk responsable politique ci APR ginnaaw bi élection yi jeexee moo fi oto woon benn méga meeting pour remercier ses militants eh, remercier responsable yi ci ndam bi xam ne ñoom am nañ ko fii ci département Koungheul ci élection législative yi xam ne moom lañ nekkoon nekkoon i nañ fa ay kilifa yu bëri bëri jëw ko ci gox yi fasantikoo yi nekk ci département Koungheul ñëw jeune homme mën nañ ko waxe femme desul ñëpp ñëwoon nañ ci mbir mi ñëpp ñu bëri nag jëf parole ñun ci teewaay même kii di acheté bi Aïcha Mbaye maa fa woon ñoom ñëpp jël parole euh, rafetlu liggéey bi xam ne Alioune Badara li liggéey na ko ci euh, campagne bi ba yàlla may leen dam fii ci département Koungheul moom itam bi mu jëlee kàddu euh, remercier leen ñoom ñëpp ñaanal leen wax leen naan le combat continue pour ñu gën a mën a indi leneen ak leneen mais ci ñoom seen biir wax nañ le président de la république naka nag li sa sàkkoon ci Koungheul jox nañ ko ko ñu ngi ñaanaat mu gën a bokk ci département yi gën a soxla ko ci kon ñu leen rek ngeen déglu entretien bi nga xam ne bi ñu paree ci waxtaan bi ñoom ñëpp jot fa parole mais Alioune lii tënk na lépp ci ay kàddu ngeen bàyyi ngeen dégg ko. lii nekk ci département wu Koungheul taxawee nañ ko xeex nañu ba nga am ndam ndaw ñi desuñ ci ginnaaw jigéen ñi desuñ ci ginnaaw ba tax na ñoom ñëpp tey ci turu maire département bi mais aussi ci turu responsable département bi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ngërmande amul àpp. leen wax ne gis nañ seen jàppale ci ñun li ngeen ñu jàppale gis nañ ko teg leen ci suñu bët tey suñu amee ndam li ñu am defe naa ne yéen yéen a ñu jàppale kon sant leen gërëm leen daf di lu war moo tax tey ñu woote woon pour fas yéene sant leen ci taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ci suñu wet ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen wax nee ñun lañ gën a takku te xam ne tey département Koungheul li nga xam ne moo fi ne defe naa li ñu ci mën a dimbale mooy continuer di ànd ak président de la république Macky ndax mu saafaral ñu jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu jànkuwanteel. jafe-jafe yooyu nag dañuy jàpp ne yu ci ëpp boo ko xaajoon ci ñetti pàcc benn pàcc bi saafara leen ko mu des ñaari pàcc yoo xam ne benn bi sumb leen ko defe naa yeggali moo ci des te comme jox leen président de la république ndëgër laay pour mu mun a yeggali ak sago defe naa ne yooyu dinañ ko réglé incha allahu rabbi may sant. yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma kenn kilifa diine yi kilifa aada yi borom dëkk yi meeru mbootaay ndaw ñi association yi ñëpp jàppale nañ ñu ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm yëpp di sant aussi vraiment les deux candidats yi ñu amoon fii ils ont été coopératifs ànd nañ ak ñun déglu nañ ñu may nañ ñu nopp sant nañ leen gërëm nañ leen d'ailleurs tey victoire bi su amee mun naa ne c'est la conjugaison de tous les efforts venant tous les leaders moo tax tey ñu yegg si fii nga xam ne moom la ñu yegg si kon maa ngi sant yàlla bu baax di sant aussi samay wayjur di sant bu baax a baax askan wi nous ne pouvons ne pas vous remercier chaleureusement du fond pour le soutien sans faille que vous nous avez montré pendant ces joutes législative tant bien importante. Vous nous avez aidés, vous nous avez soutenus. Et aujourd'hui, la conjugaison de ces efforts que nous avons tous fournis a à cette victoire, mais aussi à cette très belle victoire que le Benno Bokk Yakaar a eu ici au niveau du département de Koungheul. Je pense que la différence entre nous et l'opposition s'estime aujourd'hui à plus de 10 au niveau du département de Koungheul. Je pense que c'est une victoire vraiment méritée, largement méritée, et qui, quand même, aujourd'hui, nous a permis de gagner les deux députés du département de Koungheul. J'ose espérer que ces députés que nous avons élus au soir du juillet vont très fièrement représenter le département de Koungheul, vont aider à énoncer les mots dont souffre ce département. J'ose espérer que ce seront de bons députés et qui seront au service de la population de Koungheul. Permettez-moi de remercier les femmes, mais aussi de remercier cette jeunesse. Cette jeunesse vaillante qui nous a soutenus matin, midi, soir, sans, sans, reculer d'un iota sur ce soutien. Donc je les remercie à travers la coordination départementale des jeunes dirigée par Ali Je remercie aussi les femmes qui se sont battues à nos de façon vraiment certaine et qui nous ont aujourd'hui permis quand même de gagner, mais de bien gagner. Vraiment, je ne saurais terminer sans remercier aussi les partis alliés. Les partis alliés qui nous ont accompagnés pendant toute cette campagne, qui nous ont accompagnés pendant toute cette mais aussi les listes parallèles à travers le groupe pour la coordination du M2S, coordonné par M. Mamset Sek. Ils nous ont aussi soutenus, malgré les difficultés qu'il y a toujours eu, parce que c'est tous des vis-à-vis de maires, mais malgré ça, ils nous ont soutenus, parce qu'ils ont foi au président de la République. Les responsables départementaux aussi, je ne, je ne terminerai pas mon propos sans pour les remercier. Je les remercie tous vivement du fond du cœur et vraiment qu'on soit plus unis